ñu def ñaan géewul tv point com ñu fi nekkoon daaw président Alas As Diop ak Cheikh Diop ñu fi jóge Fati Mbeng ñu ñaanal leen def Fati fukki laas ak benn ñu ñaanal leen yàlla yàlla yokk seen leer bisimilah rahmaani rahim ñu ngi nuyu ñu fi teew ñëpp di nuyu waa dëkk bi di ko commencé ci chef de village di ko nuyu di ko siyaar di ko ndokkeel di ñaan yàlla yan bi ko yàlla yan yàlla na ko woyefal li ko yàlla may ko li ay magam ak bàyyeem amoon ci dëkk bi yàlla na ko yàlla defal lu kawe njortam ci loolu di nuyu imaam yi fi nekk yépp <coughs> ak mag ñi fi nekk euh, comme ci suba waxtaanoon la ñu ra waxtaan si ngoon gi wàllu dëkk bi rek moo si jëm te wàllu dëkk bi li si jëm xalaat yu rafet rek lañ xalaat te ulama sunna dañ wax ne maral muslimuna hasanan fo huwa inda la yasalun lu julli di ba ne rafet la lolou rafet la fa yalla te rahmul jamaati aqrab lil haqq min rahil fard xalaatu mbolo mo gën a jege dëgg xalaatu kenn kon suñ toge ba xalaat li am bis buñ daje li def ko muy bis waxtaane mbokk nek na bis bu am solo ndax ay njariñ rek mo ci kon nag buñ ko defee dañ war a sant yàlla rawatina ñi ko xalaat man de damay wax sama dëgg at biñ ko jëkkee xalaat amoon naa sikki sàkk mais biñ dawalee rek laa xam ne am na solo am na yokkute ci diine am na yokkute ci wàllu àdduna waaw te bu ko defee nag ñun waa Mborom ñoo ci gën a bénéfice parce que ñu jóge ci yeneen dëkk yi fi lañ dëkkoon yàlla moo leen fi jëlee nag xadaal fa xadaaw laay fi tànn xulil fata min makkani ila makkani yàlla mooy dogal nit ki jóge ci place dem ci beneen place waaye biñ fi jógee bu leen neexoon toog waaye dañuy ñëwaat coono biñ ci sonn ñoom ñun sonnuñu ko ñoo jël ay oto paas cotisé ñëw te njariñ bu fi am ci dëkk bi lay des kon ñoom wax dëgg yàlla war nañ leen a sant gërëm leen te xubbul watani min al iman bëgg sa dëkk si gam yàlla la bokk te lii mooy wane bëgg sa dëkk kon bu ngeen ne bëgg ngeen borom bëgg dëgg la te yàlla nee na wa nahnu aqrab min hablil warid buumu xol bi la téye sa xol yàlla nee maa ko gën a jege kon su ngeen dellu see di def lii wax dëgg yàlla dañ leen ciy sant gërëm leen ci di leen ñaanal bu baax kon yéen itam bu ngeen dellu see mborom di sonn lii dañ leen ci sant di leen ci gërëm coono bi yëgu leen ko ndax ni bakkan yi toll ni la coono bi toll way saa kaanati nu fóoti kibaara taxibat fi muraadil ajsaam waaw ni bakkan yi toll rek coono bu toll noonu la yaram yi sonn moo tax du ngeen yëg sax ne yéen ngi sonn kon nag ñu ngi leen di gërëm ma bañ a guddal rek ndax euh, jant bi gaaw na bu ko defee man foofu rek laa yem asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. maa ngi leen di sant wax ji sax daanaka man amul moo ko solo waaye nag dafa am lool il faut ma wax leen ko moo di yéen ñi nga xam ne. yéen nekk ci àll bi ca cosaanu mboroom yéen dañuy war a sant dañ leen di sant di dàggi waa dëkk bi ndax wax naan ki fii keroog nee leen keroog ñoom biñ ak see mboolem li ñu roon nat day ñëw ne xaaj baa ngi nii te heure boo xamee ne bii ne heure boo xamee bii ne ñëw nañu lu defar dëkk bi rek lañ fi wax ba bañ fi jógee kon nag sas nañu leen yéen waa dëkk bi dëkk moom dama leen dàggi moom ndaxte am na ci ñu am pas-pas sax ku ci demee na Bara Diome mu ñu ko bañ a tudd ndax Bara li muy sonn ci yi bu fekkoon bind du woon moom kon yëf da yàqu moom fii moom parce que moom coono yi ci sonn kenn sonnu ko ci am na sax ñu ko jàppale waaye daanaka xaarul kenn moo tax moom il faut ma ma ma gërëm ko moom ngeen dékku yéen ñi yéen ñi moom yëf yi li ci am euh, ku demee ne taala mii sosoon ko ker ba mu fekk semaine wax dama ko ne taala day ah boo ñëwee damay defar dëkk bi damay ànd ak yow ndax man kat bu dee po moom du ma ci baax waaye nan nan ànd jaamu yàlla nan ànd nan defar dëkk bi ku ma ci wax dama ci fekk li ma ci bàyyi ba léegi itam eh, xëy na euh, dogal yàlla ak ndimbalu yàlla waaye daanaka ñu ma kalatoon ñu ci ñu ci bari bokkutuñu kon yàlla bàyyi ma fi ma jiite leen ba léegi dama leen bëkk dem dama leen wax leen neen man mënutuma génn xanaa ma dem ba tële ndax xale dañ ma ji ci rang boo xam ne mun moo ko fay at mu nekk ma woo leen neen kaay leen jël seen yëpp ñu ne yaan doy taal mi dama ne yaay sunu mag kon nag nun boo wax su duñ ci dugg boo boo boo téye téye sëpp ca boobaay doo duñ am nu kun ko duñ bàyyi lii moom a ci bàyyi ba léegi fii léegi nag xale yi ci àll bi maa ngi leen sant leen gërëm di sant ñi ci dëkk bi it kenn nangoo topp ci noonu a ah ñi ca si nag sam ah xëy na yàlla leen yàlla leen natt rek ndax kaay nu defar suñu dëkk képp ko gantu na la leer ne nattu la ci yow ndax nit def kuy bu nit jógee ci àll bi ñëw dama leen defar sa dëkk war a ànd ak moom jàppale ko ma leen di dénk ne leen di ngeen leen dàgg ne leen na bàyyi caaxaan dëkk ñii nekk ci àll ba ñëw di addeel seen àll di ko ci dëkk bi bu ñu dem duñ ci yóbbu dara lépp luñ ci dëkk bi lañ ko bàyyi te bu ngeen xoolee dëkk bi li ci ko tey nee na du ngeen abi dootu leen abi matériel fenn du paan du bool du cin yooyu yëpp xale yee ku fi indi kon nag ñoom war nañ leen sant ku leen sant na nag waru leen ñi moom kon nag léegi wax ji comme dafa guddi ci tam jërul guddal sant leen daal yaay def yéen yéen xam yéen yéen ci àll yi ci dëkk bi ca na ko topp ci noonu nu ngi leen sant leen gërëm yàlla na yàlla may leen fan gudd ak sutura jërëjëf aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayyidina muhammadin salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di fedd li ngërëmte yi nga xam ne imaam bi def na ko ak suñu mag bi Maodo Diop chef de village ci yëngu yi nga xam ne nii comme ni mu ko waxee euh, waa dëkk baa ngi koy yëngutu wante li ci ëpp comme ni mu ko waxee ci waa ñi fi dëkkul ñoom ñoo gën a ñoo gën a yanu mbir mi wane na aussi comme ni ko ale waxee na ñoom gëm nañu seen seen cosaan kon ñi ngi leen di ñaanal di leen gërëm di gërëm ki nga xam ne nii yàlla def na mbir mi ci loosam la tegu muy taala sala ñépp gis nañ ñi mu ci mbir mi jaral ko lu ne xar ci tànk tubayam loolu dañ ko ciy gërëm waane itam jaamu yàlla ci moom yàlla na ko yàlla fay yiw fay ko ci ay waajuram ya fay ko sunuy waajur fay ko ci ay doomam fay ko ci xale yi maa ngi am tam loo xam ne bëgg naa koo wax toujours dama dafa am loo xam ne boo koy wax même boo ko jëmalee sa mbokk tam tey doon tegtal ci xale yi li may wax nii dama bëgg xale yi bàyyi ko xel ndax ñoom foofu lañ toll kii nga xam ne nii moo yore dëkk bi nekk suñu mag yàlla dafa def di lu ñu bokk ak moom moo tax suñu waajur dañ koo gërëm gërëm goo xam ne moom xëy na bañ ñu koy béral sax moom yëgu ko kon nañ jàpp ne moom mag mu ay waajuram gërëm la te képp ku sa waajur gërëm dana feeñ ci yow ci àdduna ak alaaxira ndax alxuraan wax na ko ci suratul bàqara yàlla mi ngi wax ne nit ku ne war naa yéwénal ay waajuram wasay naa bil ixsaana yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ci benn addis ne rida laay fi rida walidayni wa suxti laay fi suxti walidayni ngërëmul yàlla ngërëmul waajur moo koy tungoom merum yàlla tam merum waajur moo koy tungoom kon ku sa waajur gërëm yàlla gërëm na la moom nag yàlla wax dëgg yàlla yàlla ay waajuram gërëm nañ ko loolu laa koy seedal pour yéen ñi nga xam ne yéen ngi am ay waajur yuy dund na ngeen xam ne waajur li tubaab di wax dafa sacré na ngeen fonk seen waajur fexe yéen aussi ba am ngërëm loolu parce que bu ko amee mën naa am dana feeñ ci yéen yàlla na ko fi yàlla bàyyi yàlla yërëm aussi ñi nga xam ne ñoo yoroon dëkk bi ca woon ñu gannaaw sunu mag ju baax ja asmalik ak ñi ko jiitu ñëpp ba ca mag ña yàlla na yàlla def ñu fi ñaan lépp mu yàlla sol seen seen seen seen seen ruu ca barsàq waxtaan wi nag du mën a gudd waane damay tënk rek ndax. Euh, dañu nekk ci situation boo xam ne ñëpp xam ne Sénégal at yi passé ñaari at yi passé ak at mi ñu dugg ak at mi ñu jëm yëpp doon na ay at yoo xam ne nii pays réew mi dafa am ay yëngu-yëngu ma ci wax ay kàddu rek du Sénégal mais àdduna bi yëpp a mel noonu nañu bàyyi xel ne bu njëkk am réew daana am ay relation ak yeneen réew am réew daana dundu jëflanteek yeneen réew mucc ci ayib yeneen réew yi mais loolu moo jeex ci àdduna bi léegi li ñuy wax contexte géopolitique mondial bi mooy amul benn réew boo xam ne fii ñu toll mën ngaa mucc ci daay gay tàkk ci yenn réew yi Sénégal nag pour nga xam ne am na problème mooy réew yu ko wër dañu am problème soo demee Guinée Bissau ñaari fan ñetti fan tentative de coup d'état dafay am nga dem Mali ay coup am na fa rebelle yaa nga fa jihadiste yaa nga fa nga dem Burkina Faso noonu Niger gee bërki démb la am coup d'état Mauritanie am na fa rébellion islamique bu fay yëngutu Sénégal Casamance ngi fi mais ba léegi ñun yàlla dimbali nañu ba réew mi fi mu toll mucc na ci ayib yooyu kon ñu bàyyi xel ne daa yooyu tàkk wër senegaal Sénégal mucc ci ba tax na mat naa bàyyi xel ndax ñaari liy indi daay ci réew dañuy wax ñaari yëf moo koy indi ci biir ak ci biti ci biti wax naa leen na ay daay ngay tàkk ci biir itam réew mi nekk na ci situation bu xaw a doy xam ngeen li may wax situation politique bi am ci réew mi ak ni nga xam ne nii moom la xale yi doxale ci réew mi suñu kilifa diine yi ñuy saaga ak yépp loolu wan na ne am na lu am na ay pexe yoo xam ne ñu ngi koy fexeel réew mi damay wax ne souvent loo gis rek am na lu ko waral Sénégal dañ jàpp ñi nga xam ne dañuy bëgg xeex Sénégal ne dooley Sénégal mi ngi ci tarixa tarixa mooy dooley Sénégal mooy Sénégal am na réew moo xam ne am na ay kilifa bu ngeen gisee Mali tàkk yéey réew yëpp tàkk li aw Sénégal amu fa amul fu kilifa diine gu fa am yenn baat yi Sénégal nag ñun yàlla dimbali nañu ba am kilifa diine yoo xam ne am nañu baat ci dëkk bi bu réew mi naree tàkk ñu jóg taxaw léegi nag ñi nga xam ne dañuy xeex Sénégal li ñu seen pexe mooy nañu fexe ba kilifa diine yi dootu am kàddu di leen saaga di leen sosal di leen toroxal fexe ba xale yi dootu ñu gëm kilifa diine boo ko defee ñu këf leen dugal leen ci leneen loolu nañ ko bàyyi xel gis ngeen bu ngeen xoolee internet bi da ngay liit ay vidéo ay saaga yoo xam ne ñi ngi ko jëmale ci suñu kilifa diine yi liñ ci jublu mooy loolu parfois même dañ leen sosal loo xam ne amul sax mais pour bëgg nit ñi tóotal leen ba nga xam ne ëllëg doole jooju tarixa yi am ba ŋànk Sénégal dootu ko am bu ko defee seen pexe sotti kon na ngeen moytu loolu lu mat a bàyyi xel la ci zaahir nag laay waxee mais waxuma ci baatin bi parce que baatin bi soo beneen affaire la bari na ci xale yoo xam ne nii am nañu problème am nañu problème ci seen dund ñii dem nañ ci géej gi des fa mais ñu ci bari booy xool aussi ci wàllu baatin laay waxee tooñ ñitu yàlla moo koy indi damay joxe benn exemple rek nekk naa ci benn daara daara Abdou Aziz Sy Abdou Sy radiyallahu taala jàng benn téere bu ñuy wax euh, euh, euh, misbaahu saalik fi ma toog noonu di jàng damay ñëw toog am benn waay bu ne ah am na benn ustaas bu wax ci rajo bi nee na tiijaan daal mbaxane la rek doyadil tiijaan mbaxane la mais daf ko wax benn góor ci jataay bi ne bala muy dee dana dugg kaso maa ngi toog de Abdou Aziz Sy ngi toog Omar yi ngi toog oustaz boobu dugg na kaso dañ ko dañ dañ ko tëjee dañ ko doon yalwaanal pour génne ko kon na bàyyi xel ne nitu yàlla yi bu ngeen bëggee mucc xale bu gudd fan bëgg gudd fan mucc ci am ndog bañ sa alal yàqu bañ feebar dab la nitu yàlla yi da leen di wormaal buleen wax ci mag ñi lu ngeen warul wax mag ñi ndono mag ñi la ku mel ne sunu waajur wee nekk tuubaa toogu fa pexem bàyyi taxul mu toog Touba yàlla moo ko fa teg ca ka tax mu toog fa nit yàlla la kon ku ko mënul ñaanal maanul ci mbiram ki nekk Tiwaawan noonu ki nekk Njaasaan noonu bu leen dugg ci li xale yi dugg léegi du fontoo suñu kilifa diine yi ñoo ŋànk Sénégal ci zaahir ak ci bati lool mom moy première chose parce que amna politiciens yo xam fiñ fi ñu toll seen pexe yépp mooy màbbal pas-pasu nit ñi ci kilifa diine pour keuf leen jëm leen fiñ leen jëmé lool mom bëggoon naa ci insister parce que amna na temps yi ben article bu mo bind di tontu oustaz Omar Sall article man lama ci bëggon amna ko mooy journaux yëpp ko génne ñoom salafiste yi si yi envoyé nañ ma ay audio sax am na koo xam ne ay juróom-ñaari audio la ma envoyé ne ma jàngoo xamoo dara ma ne ko duma la tontu man jànguma xaw ma dara damaa bind bindal waaye ne tarixa yi moom ku ko attaqué ti bu dee li ma ci xalaat man danaa bind te man li may bind lu wóor mooy li may bind moom kenn du ci man dara parce que lu dama koy teg ci wormaal mag ñi ak xam-xamu mag ñi article boobu dem nañ ba ay tubaab def ci benn benn audio ci YouTube bu ngeen demee dañ ko seetaan di ko génnee kon article bi tasaaroo na ci àdduna bi won naa leen na leen bu dee da ngeen a jàpp ne mag ñi nekkuñu ci sunna da ngeen di nax seen bopp bu ngeen yaakaaree ne bàmmeel yi nekk ci biir jàkka yi dana tax nit ñi nekk ay yëfar da ngeen nax seen bopp jaamuwuñ sëñ Touba jaamuwuñ El Hadj Malick jaamuwuñu Cheikh Abdou Khadir Jeylaani jaamuwuñ Cheikh Saad kenn. dañuy mag ñu am ngërëmul yàlla ñu leen di ñaanal di def tawasul ci ñoom di ñaan ci ñoom jaarale ko ci ñoom pour yàlla may ñu may yàlla mooy may gën leen ñoo gëm yàlla kon yéen na ngeen bàyyi xel loolu lànk leen ñi nekk ci tarixa yi na ngeen fonk seen tarixa yi fonk seen kilifa diine yi na ngeen bàyyi xel loolu loolu lu ma bëgg a wax la beneen bi mooy ñi ngi jëm ci ay élection élection yi doy waar nag lañ jëm ndax élection yi dafa am ay enjeu Sénégal pétrole ak gaz daf fi feeñ ca tubaab yi nee nañu ñoom ñi nga xam ne dañu seen gis-gis xam-xam mooy pétrole bi senegal am bokk na ci pétrole bi gën ci pétrole bi ci àdduna bi gazu Sénégal jàpp nañ ne gaz la goo xam ne fa muy bale ci géej du jeex ba ilaa yawmi diin kon jàpp nañ ne Sénégal alal ju am solo moo fi nar a feeñ léegi ñaar moo am ñu ci bari ñu ngi bëgg Sénégal bañ a exploité gaz boobu parce que arrangé wu leen ñiy jaay gaas bëgguñu gazu Sénégal génn day wàññi seen doole ñiy jaay pétrole noonu ñoo ñu aussi dama leen koy wax fii am na ay politiciens yu ñu ngemb pour ñu màbbal Sénégal jël ay milliards investir ko parce que jaral ne leen ko boo jëlee un milliard jox ko benn politicien pour mu lëmbaaji Sénégal ba gaz bi bañ a génn mais ñom da leen wóor na seen bénéfice la parce que gaz Sénégal bu génnee mëna naa am na ñoom li doon am dootuñu ko am nañu bàyyi xel loolu aussi ci biir lamb politique bi am na ci ñoo xam ne ay noonu sénégalais ñoo leen gemb buñ leen këf bàyyi leen xel ñooñu parce que réew ku ko bëgg a jël da koy jël ci jàmm mais ku ko bëgg a jël ci fitna rek am na lu xew euh, man nag bokkuma bokkuma ci bokkuma ci parti au pouvoir li may wax nii aussi bu ngeen tàppee internet lu mat fukki article bind naa ko di ŋàññ nguuru makki sàll ci ni muy doxale ci yenn fànn yi kon bu may wax jàppale Macky sàll taxul mais nag dama ne euh, jàmm daa gën lépp képp ku nar a jël Sénégal ci fitna yàlla bu la ko yàlla jox parce que réew alal ji foofu alal ji li muy bari bari bu fa fitna amul gars yi dañuy toog fële Sénégal di rey seen bopp ñuy manque suñu pétrole di yóbbu di manque suñu gaz di yóbbu am na ñoo xam ne loolu la ñuy fexe bu ko defee ngeen bàyyi xel élection yi bu leen kenn dugal ci fitna ku mën a ñëw campagne wax nit ñi xool bu leen doyee ñuy woteel la bu leen doyeel duñ la duñ leen woteel ah, beneen bi mooy dafa am toujours lu ma leen di wax peut-être xale yi am na ñoo xam ne loolu raw na leen mais yéen ñi nga xam ne ay xale ngeen am ngeen ay doom yu da war a dugg école dugal leen seen doom yi ñuy jàng nañu jàng école nañu jàng diine boole ñaar yëpp parce que àdduna bi ñu nekk léegi ku jàngul danga am problème li koy wone mooy gis ngeen xale yi ñëpp de xale yu bari dem nañu Amérique ña ngi fa fees dell mais Amérique boo fa nay cëpp Amérique boo fa nay cëpp déggoo seen làkk déggoo dara mais da ngay yaakaar ne loolu du yomb ci yow ca ñu bari jëm nañu Amérique mënoon nañoo yóbbaale au moins làkk Amérique parce que bu ñu jàngoon bu ñu ko nuyoon seen jàng xay na daañu daañu mën a wax ak ñoom. beneen bi moo aussi dañ jëm ci àdduna boo xam ne nii internet beeg euh, télévision yeeg euh, ordinateur yeeg ak àdduna bi ni mu demee boo jàngul da ngay da ngay da ngay jaxasoo même ñiy jël liggéey ci réew yi nga xam dañu développé Amérique yeneen réew yi mais bu ñuy tànn aussi dañuy tànn ku koo xam ne am na tuuti xam-xam booy yi nga xam ne jàng nañu lu bon bon anglais xaw ko dégg. ñenn auditionné boobu ca camp yëpp dañ leen di bàyyi parce que dañuy xam ne ñi buñ duggee ci réew mi peut-être a daañu mën a amal njariñ réew bi dafa ubbeeku léegi loolu mat na bàyyi xel ba ku nekk daal war na góorgóorlu jéem a jéem a fexe ba seen doom yi jàng parce que at at yi ngay jàngee atum jàng at yi ngay jàngee du xaalis at yi ngay jàngee pour am xam-xam xaalis kon ku jàngul daanaka da ngay dangay da ngay sacrifier sa bopp rek na ngeen fexe ba seen doom yi école mbarom bi ngeen fonk ko beneen bi mooy dafa am ci Sénégal lu fi xew loolu aussi ci kër yi la commencé ba ci réew mi Sénégal dañoo nangatul kilifteef ku la jëlif rek nga def ko noonu ba ci école yi ñu nekk ñun da ngay gis koo xam ne day bëgg a nekk doyen par exemple suñu école ñun université boo bëggee nekk da ngay nekk doyen dañ lay fal dañ lay fal doyen ña la fal buñ la falee bu ko suba saa nga nekk chef rek ñu def la doon mu mel na nit ñi gëmatuñ ku leen yilif te nag àdduna bi ku fa nekk daañ la yilif service ba nga nekk ka yàlla def mu yilif la da ngay nangu mu yilif la ci ay ci ay yoon la la yilife mooy dama lay yilif na ay texte la la yilife respectel texte yooyu réew mi aussi ñi ko yore yàlla jox leen ko ak nu mu mën a demee dañu am seen autorité il faut ñu jox leen ko Sénégal laa gis damay waxti encore du waxal du faral Macky Sall moo tax may wax dañ ñaan Macky Sall dafa tëj ay nit yu dul jeex dañ ñaan Macky sonal na journaliste yi sonal na politiciens mais politiciens yi sonal nañu Macky ak nguuram journalistes yi sonal nañu Macky ak nguuram xale yi sonal nañu Macky ak duñu yi erreur def ba am problème mais bu fekkee ne président euh, dañ jàpp de mooy tëj nit du du boo xoolee Sénégal ni mu jaxasoo nii lu neex waay wax lu neex waay def cim réew muy muy muy amul amul ci benn réew bu bu mën a demee noonu président boo ko contrer aussi demal nga politique contre ko pour jël nguur gi man daanaa fi ñëw di politique jamonoy Ablaye Wade contre Ablaye Wade mais dama daan wax man bu fekkee ne contre Ablaye Wade pour saaga Ablaye Wade la man duma ma saaga Ablaye Wade du ma saaga nguur du jàpp ne kii falu amul droit def li mu war a def damay jàpp ne ci nguur gi mi ngi def loo xam ne dëppoowul ak li gën dinaa ko wax nit ñi ñiy wote buñ mënee wote ba folli ko ñu folli ko képp ku fi bëgg a jël nguur ci jaare ko ci ay carte ak ku mën a ànd ak yow ci gutal ak am pax ngay dugg yàgg naa koo wax pax ngay dugg parce que dañuy dañuy da ngeen di bàyyi xel ne état ak nguur yamuñu état ak nguur yam Macky Sall day dem état bi day des policiers yeeg ma yeeg magistrat yi ñooñu for ñu fenn comme ñun waa université man li may jàngale université mag Sall mënu ci dara ministre bi mënu ci dara sama liberté laa am mais liberté boobu ma am su lu ma neex def kon ngeen bàyyi xel ne politiciens yi aussi foofu def nañ fi ay dérapage yoo xam ne ku ku waxal yàlla waxal dëgg xam ne loolu am na journalistes yi aussi nekk ci télé yi boo xoolee kenn xamatul métier journaliste man bëggoon naa ko nekk sax

xool xool li war ma xool xotti war ma yi nekk ci ci télévision yeeg rajo yi mais loolu oh, euh, euh, lu doy waar la ci réew mi crise la boo xam ne aussi il faut nit ñi bàyyi ko xel xam ne mën na indi lu bon ci ci réew mi beneen bi mooy dinaa wax aussi ci ci ci xale yi loolu moom damay naan euh, gouvernement bi man yàgg naa ko wax njàng mi baaxul te gouvernement yi ba léegi defuñu benn effort ki nar a yore Sénégal moo nar a am problème jàpp nañ ne téeméeri nit yoo jël Sénégal juróom ñaar fukki ak juróom ay xale lañu nekk douze millions yoo xam ne ni seen at mooy quinze ba ba trente cinq ans ñu ci bari liggéeyuñu ñee ngi dëg dëgmal àdduna war a am soxna war a am ay kër ñooñu ku leen bëgg a yilif fi ñu ca bàyyiwoo xel loolu da am problème alalu Sénégal tam ñi koy ñi ñu koy yàqe il faut loolu deñ politicien bu mën a falu ñaari weer ñetti weer nga mën a maye ay millions maye ay paasi màkk jënd ay oso di maye danga ko sàcc ki ki yore Sénégal il faut mu régler loolu c'est-à-dire détournement yi am ci ci ci loolu bind naa ci de yàlla xam ne bind naa ci article boo xam ne article boobu boo xoolee ñi ko liir ak journaux yi ko génnee bari na càcc gi commencé ci ki ngay neexal ci bureau bi pour mu régler soo kayit ba ñuy détourné ca ca marché ya loolu doon na loo xam ne yéem na ci Sénégal parce que man maa leen ëpp solde mënuma ko kon ñooñ fu ñu jëlee xaalis bi jangale jàngalekat mom sa sol rek ngay jot mais nit mënul am yenn xaalis yi nekk fonctionnaire loolu aussi état bi il faut ñu xool ñi koy yore ñu jéem a changer beneen bi mooy alalu réew mi il faut ñu jëm ko dugal foo xam ne day amal xale yi njariñ li amal xale yi njariñ nag dafa bari parce que réew dafa am ay secteurs yu dul jeex Secteur yi dul jeex secteur bu ne da ngay xool secteur ba xalé yi nañ toll nga investir lu jar loolu pour téye parce que population Sénégal bariwul li nit ñi foog bariwul alal ji fi nekk bu fekkoon ne teg nañ ko ci yoon amaana ku ku jàpp di nga mën a am loo suturloo parce que bu ñëpp di jaay du sotti bu ñëpp di bay du sotti bu ñëpp di sàmm du sotti bu ñëpp di napp di sotti mais bu fekkee nappkat ba ma ngay am daraam sàmmkat bi di am dara baykat ba di am dara jaaykat ba da ciy profito ca loolu organisation réew moo ko am moo moo moo moo ci la aju dafa am nu ñu war a tëggaate yorinu réew mi ca man jàpp naa ne man loolu laa gëm li xew fii metti na trop ñaari at yi crise bi am Sénégal waane li muy wane mooy Sénégal képp ku ko bëgg a yoreeti da nga nekk nit mbaa nga jóge fi ndax xale yi dootuñu la ko may ca li koy li koy firndeel mooy élection yi élection yi ñu jëm sondage yi nee na dara leeru kon seen xel mën na dal ne la daan euh, am mën na ñàkk beneen bi mooy tolluwaayu réew mi mooy xale yi ñoom ñëpp màbb ne dañuy génn am na ay chiffres yu ma gis man yu ma jot yoo xam ne tubaab yi ñoo ko génne ren juróom benn junni xale dee ci géej gi te jàpp nañ ne juróom ñetti ñetti ñetti junni yëpp ay sénégalais lañ bu ñu sénégalais aussi kayitu sénégal lañ tukkee kon xam nga ni loolu jaratu ko ca Europe danga naan képp def na yaa ci nekk demewul noonu boo fay dem boo amee chance dem fa en tout cas da ngay gis ne yombewul noonu da ngay gis koo xam day jël 4 5 6 millions na ma ngay dem Europe mën faa toog at du fa liggéey 6 millions te amana 6 millions yi bu ko gardé won Sénégal liggéey ci mën ci am 4 millions balay balay at mé jeex génn mënul ñàkk ñi bëgg a génn mais nañ ko teg ci yoon wuti alal ba far sa bakk far sa bopp ci xale jër aduna jëru ko loolu aussi fi ngeen bàyyi ko xel euh, États-Unis temps yi compliqué na ña ngay commencé ñoom di di jafe taral affaire bi sedd baa ngay dugg ku jaar ci géej gi walla nga jaar ci yoon yooyu yaa ngi risque sa bopp loolu tam nañ ko nañ ko nañ ko bàyyi xel xam naa ne damay jéem a daaneel rek ndax comme ni ñu ko waxee temps bi dafa gàtt li may wax tam mooy euh, ci laay delsi crise du Sénégal moom ci ñett laa koy tënk ñett laa koy tënk euh, te di ko teg ci waxu kilifa Sénégal am na ñetti góom ay politiciens yoo xam ne li leen ñor mooy falu tedd ak ñi àndal ñu tedd mais Sénégal yitteelu leen loolu lu lu ñëpp teg seen bët la politicien boo xam ne danaan damay jaayanteeg yàlla jël Sénégal teg ko ci raay mu Sénégal yi am na ñu bëgg am na may bareetu wala boog même boo amee yéene ji ni nga koy amee ni ngay amee Sénégal boo ko amee noonu li nga bëggoon dootoo ko man damay jox exemple rek ki fi nek projet bi mu waxoon moom lay doxal mais bimu mu jëlëree mënatu ko dox parce que ñi andon nak mom té lool aussi fo Sénégal bayiko xel li waji wax ku ndékkee ak Senghor ré rek Abdou Diouf njogonal ak ablay wad bu ré rek yow aussi xamal né ñar ñama tax mëno jël réew mi and ak ay njublang ba jël réew mi wañu ko né da ngay changer réew lool aussi problème la cest di dire que alliance yi ñuy def boo xoolee même alliance bi politique ñoom dañuy dajaloo rek ba mu yàgg rek pour doole ku ñëw rek nga ànd ak moom mais yow ku ñëw nga ànd ak moom ña fi nekkoon démb nee nga baaxuñu te ñi te ñi ñi wër li la wër ñëpp ñu ci bari ci foofu ci waa waa waa ña nekkoon ci réew mi démb ñoo la wër mais boo jëlee réew mi li nga doon bañ dana am donc loolu aussi foo ñu bàyyi ko xel nit ñi bàyyi xel xool ñi nga xam ne dañu bëgg a changer mi mais ku bëgg a changer réew mi ko yoroon baaxuñu mais képp ku yoroon ci réew mi wala nga bokkoon ca ña ko yore woon kooku danga ko war a du mooy mais boo ànd ak moom rek li ngay wax gëmoo ko loolu aussi lu ma a lu mat a bàyyi xel beneen góom bi mooy ñeent sax laay wax mais beneen góom bi mooy euh, Sénégal aussi dafa bari euh, li ñuy wax ñun ñëpp ay jullit lañu mais benn kilifa diine dama dégg mu ne Sénégal dafa bari am mag ñoo xam ne yàlla safu leen donte kon dañuy yëngu ci diine yàlla safu leen mag ñooñu dañu bari Sénégal. ak xale yu xamul yàlla mag mu yàlla sëful xale yu xamul yàlla dafa bari Sénégal ci lépp ñu bëgg koo dox ci diine dem ba dugal ci diine gi nag ay tappale ay tappale mooy ku nekk yaa ngi woote sa côté pour mbooloo te mbooloo mi ngay woo defu leen dara lu dul da leen di utiliser dama koy wax nag ngeen baal ma ak dama koy wax sama mbokk tijaan yi mënoo dëkk ci ay daayira ca kenn du la gis ci géew géewu wës fa boo ne ab tijaan nga da nax sa bopp mënoo dëkk ci gé yendu ci daayira daayira yi ba fajar nelaw ba midi doo ñaar rakkaa fajar sax doo ko julli yonent bi wax ne rakkaatul fajaru xayrun fi mina dunya wa moo gën àdduna ak ci biir nga dem daayira nelaw ba quatre heures nga ñëw nelaw raaf ñaar rakkaay fajar suba yow jant bi fekk ngay julli ci ñaare bu buñ leen ko waxee du leen neex mais daayira yooyu yëpp ñi leen fay indi seen intérêt bopp moo tax du diine nañu dellu ci li mag ñi doon jàngale sunu mag ñi fi nekkoon yëpp képp ku mas sa ànd ak ñoom daañ la bàyyeek ak sa ngor bàyyi la ak saw ñaq ànd ak yow ci jaamu yàlla tarix boo dem nag xanaa kay dañ dem ba ci biir ñu dugal ci lu ci bokkul mais amul menn mag mu daan woo nit ñi ba mu ñëw mu leen di mu leen di mu leen di mu leen di jariñoo amul moom kay dañuy fexe yow ba nga am cër ci yàlla daañu fexe aussi ba nga jub daañu fexe ba nga liggéey am loo terale say say sa sa sa njaboot mais léegi li am mooy foo toll ñu fa ñu gis naa fi sax kuy woote maax nee na mooy di mooy di imaamul max di am na ñu ko topp mu yore ak mu fulaaram ak akob kaanam fu mu dem ñu topp ne moom mooy imaamul di ay xale yu dul jeex topp naxaate bi dafa bari il faut ngeen yeewu yeewu bi nag paasewul lenn dul ku ci nekk murit xamal ne sëñ Tuubaa am na nu mu tabaxe xam am na nu mu ko tërale boo ca tënkoo mën naa am boo jubalee yàlla tijaan noonu xaadir noonu kon suñu mag ñooñu dañu fi bàyyil ndono loo xam ne damay wax ne toujours man li may xalaat mooy dañ ko war a dugal ci école bi pour xeex nag ñi nga xam ne dañuy xeex tarixa parce que salafis yi commencé nañ dugg ci réew mi te tarixa rek lañuy ñuy xeex bëgg xeex pas-pasu tarixa rek ndax nit bu demee ba ne laa ilaaha illallah folklore la euh, julli ci yonent bi folklore la mais kooku wax dëgg yàlla kay te commencé am doole ci réew mi kooku mat na bàyyi xel te li koy bàyyi xel mooy nañu dellu ci cosaanu tarixa yi doxal suñuy tarixa doxal li mag ñi daan daan daan daan digle jéem cee jàpp ci fas yéene liggéey dund sunu sunu ñaq fi may daanale mooy élection yi fu mu jëmee Sénégal loolu question boobu lu mat a posé damay tënku ci benn boroom xam-xam bu ne ñett yi nit war na ko laaj boppam lan laa war a xam lan laa war a def lan laa war a yaakaar tubaab ba wax loolu ñoom am na ñetti ñetti xal ñetti laaj moom am na ay réponses yu mu joxe mais réponses yooyu mu joxe ñun soxaluñu parce que moom da koo wax ci aadaam ci li mu gëm mais ab jullit moom boo ko ne loo war a xam danaan man war naa xam sama diine xam sama bopp loo war a def war naa liggéey tedd jaamu yàlla te liggéey sax ci jaamu yàlla la bokk ndax ñak wi ngay ñak pour dundale ko sa njabot ci jaamu yàlla lu bok lépp lu way def ci julit mo xam wut alal la ci selal mo xam euh lenen lépp loy def ci aduna bi ci jaamu yàlla lay teunk kon ab julit mom bo xone lo wara def day wax man dama wara teunk ci jaamu yàlla rek parce que loolu la ko yàlla loolu la ko yàlla binde wama khalaqtal xalaqtal wal insa illa li yaxbuduuna yàlla wax ci alquran sàkku ma nit ak ginne lu may ñu jaamu ma jaamu boobu nag dafa yaatu lii ngeen di def rek déjà jaamu yàlla la fexe ba ay mbokk dajaloo di waxtaan fexe ba dajale ku nekk joxe saw ñàkk ñu toog koy ay ñam yi ñu lekk ko fexe ba xamante boobu lu ne mën caa juddu ci lu baax ñaanal sunu mag ñi fi ñu ñu fi nekkoon loolu ci jaamu yàlla ci ñu ngi koy def kon wane ne jullit moom jaamu yàlla rek la war a def lan laa war a yaakaar nag mooy bu fekkee na li nga texe àdduna ak alaaxira nag du am ay millions yu dul jeex déedéet mooy dund ci ngor ci lu lew ànd ak dal ba yàlla moom la nga jubóog borom sa borom te loolu dund gu tey rek moo ko man moo ko man moo ko man defal jullit di wax na nag pour jeexal fu Sénégal jëm damay wax beneen cycle politique moo am li tubaab wax beneen cycle politique mooy nañ daan doxale politique Sénégal De 2024, mille vingt façon politique moy suis mën naa comme mais mais nañ jox nañ yoré won Sénégal mom kenn mëntu ko yoré Sénégal C'est mom ñi fal ñi nek ci nguur gu sax xam nañ ko ñom buñu jilaté réew mi sax dañu dañu daañu xoolaat seen bop dañu tabaxat benen yoré réewin réew xel aussi xalé yi nga xam ne ngi leen di xaar loolu Nous képp ku falu ku mën a doon candidat yi ku ci da nga bàyyi xel loolu beneen bi aussi mooy ci cycle politique bi may wax mooy àdduna bi changé na changé boo xam ne nii képp ku yaram réew da nga ko bàyyi xel mais ñetteel bi aussi mooy koom-koom feeñ ci Sénégal koom-koom bu am solo boo xam ne nii amaana ñi yor réew mi ëllëg bu fekkee ne yàquñu ko ñoŋal ko teg ko fi ñu ko war a teg bu ñu dawlee ay at Sénégal man naa soppeeku yàlla na yàlla def kon ki nga xam ne nii mooy yor réew mi nekk ku xam loolu yàlla jàppale ko waane lu mën a am daal moom ak lu mën a am yàlla nañu yàlla defal jàmm yàlla na yàlla def réew mi mag ñi liñ fi ñaanoon mu am yàlla na yéen yàlla jàppale xale yi na ngeen continuer comme ni ngeen daan def mag ñi dañu daan yare gone ak mbaroom day liggéey ñàkk caaxaan jubal bañ a bañ a tooñ tegu ci ci dëgg yal na leen ko yàlla defal yal na yàlla def li may wax askanu boroom yàlla feeñal ci ay nit ci xam-xam feeñal ci ay nit ci wilaaya ba yowmal xiyaam ñu mën ñoo jariñ feeñal ci ay nit ay alal yoo xam ne ëllëg mën na baawaan ba waa boroom jariñu ci kon maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam wasalaam wasalaam alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayyidina muhammad jër leen jëf sunu mag Baye Talla ñu bari xam ko ñu bari xam ko ci yitteem ak pas-pasam ak bëgg mbaroomam ak bëgg ay bokkam rawatina ay jëkkandoom ñu bari mën koo seede ci ku ci am soxla moo xam fii ci Kajoor la moo xam ca Touba sa xel ka muy jëkk a mooy Baye Talla Diop moo xam nit ku génn àdduna la la nga njëkk a jot mooy naa ko jot kat ndax su ma ko jotee sama aajo faju bu dee ko am aajo ci këram la la nga njëkk a wax mooy naa ca dem ndax su ma ca demee dana ma lijjanti su dee da nga am foo war a dem te am ca jafe-jafe da nga ne dinaa fa dem ndax su ma demee mu ànd ak man ndax du ne kii dama koo xeeb ci na tuut tànk la wala dama koo xeeb ci déedéet waaye ku ñëw dina la jox sa cër ku ñëw la nga yaakaar ci moom dana ko def ci yow su xëyee ba takk ndigam génn këram bala faa duggaat julli gee la te bu dee téeméeri itte lay dox juróom-ñeent fukki ak juróom yépp ci ay jàmbur la koy dox kon kooku lañu war a jox décoration muy koo xam ne si liggéey bi ñuy liggéey ci maroom def na ci lu rëy lu am solo lu ñëpp mën a firndeel ndax ñun bi ñu koy taxawal bokk na ci ñi ñu fital jox fit ba tax lu bari ñu ñeme koo def ndax day wax ne ak bokk su ngeen ragalee waxante dëgg léegi mu tas te dëgg googu képp ku muy àndal dala koy wax di ko def ci yow kon kooku tey lañ fas yéene ñu décorer ko décoration bi liñ ci jublu mooy ñu xam ne am nañu royukaay boo xam ne buñ ko xoolee du ñu déng-déng du ñu tiit du ñu yokkat buñ ko xoolee danañ am fu ñu teg suñ tànk ci bëgg suñu ay bokk danañ am fuñ teg suñ tànk ci nangoo jàppale ay bokk danañ am fu ñu teg suñu tànk ci nangoo sonn ndax fépp foo xam ne nit ma nga fay sonn ci lu baax soo gestoo danga ko fa gis néewul fii rek laa jébbal wala déet waaye fépp fu ñu sonne ci lu baax soo gestoo da nga ko fa gis kon kooku tey jii bu ñu ko jëlee ñu koy décorer ci péncu mbaroom ñun ñëpp war nañ koo ñaanal ñun ñëpp war nañ koo sant damay wax ne nag ñun ñoo ci gën a raw ñun fa waa kër maam ma soxna Jóob ndax dañuy wax ne tey jii lii ñu ko jox njabootu ma soxna Jóob yëpp lañ ko jox nja mboolem njabootu maam Asta Fall lañ ko jox moo xam ñi ci bokk ci góor moo xam ñi ci bokk jigéen kon dañ koy ñaanal décoration bi jikko te loole di ab soññee boo xam si day tax ku nekk takkaat sa ndigg ba ne lii mu amkat dinaa ko fas yéene am ndax jërëjëf kat yomb na lool waaye ku jëful du ko dégg kon baytaala bisimilah na la décoration bi jikk asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ñi ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di leen eh, ziyaara eh, di leen baal wàq aussi naa di di jaajëfal ñëpp rek ci liggéey bi xam naa ni am na solo trop xam naa pour que ñu wax ci wàllu GIE bi loolu lañ ñu jox parole maintenant bu dee ci wàllu lu mu réalisé yaakaar naa jaruñu ciy jaaraat parce que bu ñu xoolee bâche beeg décor beeg podium beeg yooyu yëpp rek ñu xam ne am na lu mu fi def ba ci ci wàllu décoration yi ñuy def ak euh, exposition bi ñu def fële aussi tamit yooyu yëpp GIE bi moo ko gere muy wàllu santé bi aussi tamit ñi doon def yooyu yëpp tamit ñoom ñoo ko géré te ñi ngi jaajëfal bu baax a baax

war ñu ko ragal ba tax na GIE bi am na yu ñu doon waxtaan muy ci wàllu forage bee nekk ci ci penc bi ñu fexe ba ba am sunu forage bopp parce que remarque bi ñu def moom mooy euh, ndox mi ñu ngi ko doon jaayee village bi 200 cent francs mètre cube bi te léegi liñ ci remarqué moom mooy dafa yokk mi ngi ci 250 te 250 yooyu aussi tamit dina xaw a diis bien que fukki dërëm lañ ci yokk mais euh, buñ ko xoolee ci nombre bi day xaw a diis ci ci ñenn ñi te buñ ko évaluer dina xam ne lu metti la ci wàllu dëkk bi ñu xool ne am na village yoo xam ne jege nañ fi te fexe nañ ba réussir projet bu mel noonu muy euh, projet forage bay bayal seen bopp ci seen biir dëkk di utiliser seen forage yu dëkk te duñ fay ndox kon nag loolu aussi tamit ñu ne woon GIE bi nañ lancé projet bu mel noonu ñu jotoon ci def ay jéego ba nga xam ne évalué woon nañ projet bi ba mu nekk aux environs de huit millions mais ñun nag suñ problème majeur moom mooy lenn mënta nekk da ngay wax benn projet rek kenn tëb fee ne mënta nekk ñu bala basé wu ci mënta nekk jooju dinaan mënta nekk mënta nekk ba duñu def dara te loo fi gis muy réalisé wu nga gis fi projet wu centaine de millions ay nit a booloo defar ko kon nag ñun buñ booloo war nañu réussir lu ëpp loolu parce que benn bis bii rek yaakaar naa liñ fi évaluer ci wàllu ci wàllu budget bu ko réaliser mi ngi ci presque trois millions cinq cent kon nag loolu buñ tegati projet ñi nga xam ne déterminé wu nañ buñ basé ci ñi nga xam ne euh, defuñu te bëgguñu ko def kon loolu aussi ñu bàyyi ci xel bu baax projet bobu buñ ko réussir yaakaar naa bu ñu bay bay noor ci biir dëkk bi dañ ko mëna def buñ bëggé nit ñi di utiliser ndox té du diis ci ñoom dañ ko mëna def kon nak loolu nañ ci jëmo a loolu la ñu nañ ko lancer comme projet mu nek suñ projet phare ci année 2024 bi ñuy ñaan kenn ku ci nek nañ ci japp xamna naa dina xool naka lay def ba euh financement projet bobu ñu fexé ba kenn ku ci nek la nga ci wara participer nga participer participer ko parce que jot nañ ci waxtaan ñoo xamné

kenn même bu dee dañ koy def par buntu kër gu nekk ñu tegal la benn daal lay jox euh, mission pour nga fexe ba sàmm ko yaakaar naa loolu aussi dina am leen lu mu mën a jariñ ci biir kii bi peut-être dañ ko commencé ci jàkka ji mais après dañ projet boo xam ne dañ koy étendre après ba kër gu nekk ñu sampal la benn même bu dee dañ koy pare ne mag ma fa dëkkoon pour nga xamné aussi wa kër ga dinañ mëna am euh, courage pour diko diko di euh, ba nga xamné kenn ku nekk dina dina xaw rouss sax ñu parrainé ben ben garab sa buntu kër parrainé ko sa mam kele di sàmm bosam yow nga yow nga sagané sa bos yaaka na mission mo nekkon ñaar yoy ñi ngi ci jégalu bu baaxa baax ñu ñaan aussi timit kenn ku ci nekk ku ci mën ñaan nga nga ci def ñaan ku ci mën aussi timit participer na nga ci participer parce que li fi dajé tay yaakaar naa luñ jëm te mënuñu ko ci ñoom la loolu il faut aussi ñu waxu li fi daje tey parce que da nga koy xool ci séddale bi ba ñuy séddale la romb fii ci bool man dama leen doon wax sax di tooñ waa waa waa waa waañu naan leen xanaa waa mbisis ngeen jëm xanaa mbisis ngeen jëm parce que li fi jaal aussi tamit il faut aussi tamit ñu jëm exploiter loolu am na leen loo xam ne pouvoir la ci ñun nañ ko jëm exploiter nañ ko jëm exploiter parce que li fi daje bu kenn ku nekk joxe woon cent franc bu ñu ko tegee fii dañ naan déedéet loolu amul kon nag loolu aussi tamit il ñu jëm ko exploiter te ñu bàyyi euh, di bàyyi di bàyyi xel ñi nga xam ne chaque fois projet boo teg ñu ne mënta nekk ñooñu moom ay gàllankoor majeur lañ kon nag loolu nañ ci bàyyi xel bu baax ñi ngi jéggalu bu baax ci kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullah maanaam li mu doon wax sànq rek firnde ji day ñaari garab yi nga xam ne ànd nañ ci sànq ci bëccëg biñ jullee tisbaar ba pare ànd ak euh, Baye Maodo Diop mii nga xam ne mooy borom dëkk bi jëmbat fi ñaari garab yoo xam ne dañ koo ubbee liggéey bi mu ngi ñaari garab yi ñu ngi fii ci biir jàkka ji ndax ku ne xam na ne ab dëkk moom jàkka dafa bokk ci la fa gën a ab valeur ci ab jullit. maa ngi sant yàlla bu baax moom mi nga xam ne moo ñu mayoon ñu fekke daaw fekke waa ren te tal ko ndax. man nga fekkee fekkewaat waaye doo tal waaye yàlla def na fekke nañ tal nañ ñu ñaanal tamit way dawlu yi nga xam ne heure bi daw fekkoon na leen fi waaye heure bii ren fekk ñu jiitu ji yal na yàlla xaar leen àjjana ñaanal ñëpp ñi nga xam ne ñëw nañ fii ni ñëwee ci jàmm yal nañ ko delluwaat ak jàmm di nuyu président bi nga xam ne mooy président national bi ñu koy wax Talla Diop ñu taala Sala taala ñu ngi lay nuyu bu baax di la sant bu baax di la gërëm ci sa njàmbaarte ak ci sa pastéef ndax jiite aw mbooloo kat yombul danga mën a muñ waaye danga am ak njàmbaarte danga am pastéef yooyu yëpp nag daje na ci yow kon ñu ngi lay ñaanal yal na yàlla gën la jàppale yaa ngi ñi lay jàppale ñëpp dafa guddi mënuñu lim ñëpp waaye ñu ngi sant yàlla bu baax di gërëm professeur Amar Sarr Diop ndax doomu mbarom la jàng ba am ay diplôme bokk ci ñi am ay diplôme ci réew mi bëgg dëkkam saa bu xëyee mi ngi xalaat xalaat boo xam ne bu ko sottee ci askanu dëkk bi buñ ko jëfandikoo dañ ca gis njariñ kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal yàlla na yàlla bàyyi la ak sa xel di nuyu jigéen ñi bu baax surtout nag suñu bokk yi nga xam ne ñooy jóge ci yeneen dëkk yi di ñëw ndax ñooñu kët mën nañ ne coono bi ndax tëj sa kër tëj sa place bàyyi sa liggéey ñëw am ñaari fan ñetti fan te li ci ëpp guddi ngay ñëw guddi ngay ñibbi ñooñu loolu ko def war nañ la sant war nañ la gërëm ko ñu leen di sant bu baax di leen gërëm ndax géewul gii la juddoo yaroo géewul jàngi géewul fekk baax baax fekk gu géewul nee na xam na ne askanu mbaroom ñu bari ñu ngi bokk ci commune Djiddah Thiaroye Kaw te moom mooy meeru caaro Thiaroye Kaw moo tax euh, su ko mënee lu mu guddi guddi dana teg tànkam fii ci mbaroom savonte ak ñoom moo leen yabal boole leen ak man jox leen enveloppe bi ne su ngeen demee ndax Maodo kat sama nit la sama xarit la moo ma nekkal foofa ca commune ba ak ca dëkk yi ñëpp kon su ma doon yónni bu ñuy mënta dem moom laa war yónni waaye comme day dëkkam ah, bu ngeen demee na ngeen ko teg ci loxoom enveloppe baa ngi nii moo ne ko jox muy ñaar fukki junni mu ngi nii ñu jox ma ko. monsieur le maire ni ma ko waxee woon encore une fois ñu ngi lay sant bu baax di sant monsieur le maire gis nañ seen taxawaay ci commune bi gis nañ seen seen jotal lépp lu xew lu mu gàtt gàtt rek. monsieur le dina ñëw wala mu def délégation. loolu moo tax duma ci mën a avancer lu bari waaye li ma itteel rek mooy sunu projet phare bi nga xam ne 2024 muy sunu pompe ndox bi ñu bëgg a def ab château d'eau war ci def sunu maraîchage bi ñu bëgg pour mbaroom moom boppam. loolu nag yéen waa mbaroom bu ngeen ci d'accord tàllal leen seen loxo ngeen tàcc loolu dañu góorgóorlu ci mën nag sama yitte monsieur ñu ngi lay gërëm. li ko waxi dégg nañ ko monsieur le maire yow mi doog excès dañu dañoo lo xone fekke woko dañu am projet sunu forage bi nga xamne ñoko mo man pompe bi ñu bokk ko defar cheta do mu am pop am lepp kon ñi ngi la koy yëgal ginaaw biñ ko yëgalee sunu ancien maire di sunu doomu dekk ñukay sago sagoo fu ñu toll liñ ci woote nak moy doom mbaroom tay la mbir mi commencé kep ko am 5000 wala nga am 500 wala nga am 100000 wala nga am 500000 wala nga am 1 million tay la commencé te képp ku ci feeñ nag yàlla boo ci morom man loolu laa doon wax maa ngi leen baalu ax kon nag ma soxna moom daal dinay ñëw waaw ak mil francs pour commencer ko kon nag bis naka tey ci la commencé man loo rek laa wax képp ku ñëw def ci nag waaw mu ngoog kontaan nañ kontaan nañ kontaan nañ kontaan nañ bilaay kontaan nañ yàlla xam nañ ko kontaan nañ kontaan nañ kontaan nañ bilaay kontaan nañ macha allah sëñ Tuubaa kontaan nañ teel teel taal teel ma taal teel def leen jox leen taala jox leen taala jox leen taala jox leen taala kontaan nañ jox leen taala jox leen taala comme ni ko monsieur le maire suñ papa Maodo Diop waxee sànq rek ñuy sant di gërëm bu baax a baax ki nga xam ne mooy Mamadou Gueye di DG des domaines en délégation bu mu am bu ma am solo di gërëm aussi monsieur le maire Maudo Diop di xamne kaddu jël nako fi di gëm aussi donc le professeur Sar Diop nek doom ngumba doom mbaram aussi tamit doom mbaram so bala may wax doomu ngumba nek aussi professeur ba vraiment ñu dañ koy titéro kep ko dégg mo xara xamni manam ñun wa mbaram ñu valeur waaye buñu génnee ci international xamni suñu professeur Sar Diop mi xam doom mbaram amna doom ju ju muy rayo di gërem aussi tamit suñu papa Cissé Diang Kaolack di gërem Serigne Sidi Lay Ndiaw Ndiaw di gërem Assane Dangoura di gërem Baydi Ba Baye Saliou Ndangoura di gërëm Baye Mbaye Ndangoura di gërëm waa Paalen Fall di bërëm euh, ala Ñang di gërëm Baye Ablaye saw ak sëriñ càmba Sey ak waa kawlak di gërëm aussi Baye Midi Diop ak Serigne Kokki da aussi yàble na fi moom tamit délégation di gërëm donc waa kër Cheikh jaw ak waa kër euh, Balla Diaw di gërëm donc waa Njeyeen Bangoy ak daayira donc Mborom Dieng kon daal loolu amoon ñi nga xam ne ñu ngi leen gërëm di sant ñëpp ñi nga xam aussi tamit tey bàyyi nañ seen i yitte moo xam ñu jógee ci village yi wër Mborom ak fépp ci Sénégal ñëw ci bis bi ñu sant di leen gërëm bu baax baax jërë ngeen jëf. waaye su gisee ñu jël kàddu gi dañ koo jël ci ndigal ci suñuy ay mag ci doléance yi nga xam ne si Mborom am na ko tàmbalee ci yoon wi nga xam ne képp kuñ na oto booy luyee ne damay dem Mborom mun la mun ma faa dem ndax yoon yoonu baaxul kon ñun suñ doléance bi njëkk mooy aw yoon lu ñu nit mën ci dimbalee. te defaloo ñu yor dañuy def ne defaloo ñu dara kon yoon muy suñu doléance bu jëkk kon bu ñu gisee ki nga xam ne si ci la décision yi di jaar ci moom bala ñuy wax kenn dañ koy wax ne ko lii lañ bëgg ndax tey amoon nañu mbégte suñ ndaje mbarom jotee ñu mën a dawal suñu biis ba agsi ci dëkk bi ñëw gaare teew wala suñuy dawal suñu oto ba dëkk ci dëkk bi ñëw gaare teew waaye ku ne gis na ne oto boo ne damay dem mbaroom mu ne la mënuma faa dem parce que yoonu dafa metti ba ci luyaas boo waroon na fay cinquante mille wala quatre-vingt mille da nga ko fay cent cinquante mille loolu nag ku ne xam na ne ñàkku yoon moo ko waral te it bu ñu doon xool ci population yi nekk ci département yi jàpp nañ ne mbaroom desu ci ginnaaw kon ñu jàpp ne lépp lu nit di am ci lu baax mbaroom yelloo na ko kon loolu doléance bi njëkk ci doomi mbaroom lañ benn bi ci des ñi ko ñi waxee muy teen bi dañoo bëgg kon ni ko ñii waxee am nañ doomi mbaram yoo xam si ay kaadar lañ nekk ci biir baas bi suñ ñi nga xam si dañuy xos xosu li góorlu génn seenu ñaq ñoomit nañu génn seenu ñaq wala ñu bind seeni segnement def lii ci biir mbarom kon loolu dafa war ndax dañuy bëgg ku ko mënul it nga jël engagement ne mankat sama dëkk jaral na ma lii doomi mbaroom laa di jaral na ma ko xam nañ leen ci jom ci fulla ak fayda ak bëgg seen bopp ndax ba ñu commencé projet bi ba agsi fii ba léegi li fi nekk yëpp ñaq doomi mbarom lañ kon nañ ci tàmbalee ci ñoom tey am nañu doomi mbarom yu ko mën a def kon nañu tàmbalee ci ñoom projet boobu mooy bi njëkk beneen bi ci des ci sunu mag waxoon na ko te sëriñ wax ko muy ci mbirum garab yi dañuy bëgg ndax ab dëkk garab daf ci am solo ndax boo seetee dëkk yi wër fii yëpp am na ci dëkk yoom xam lañuy la ñuy dunde ñu ko jëlee ci seeni garab kon mu mel ne munta ñàkk ci ñun ñu am ay garab yu ñu jëmbat ci suñu biir dëkk yi rawatina ci biir dëkk bi nga xam ne ñu jëmbatoon fii garab tey ñu ne ah garab gii kat dañ koo tuddee bàyyi góoruma jigéen ay sëtam danañ jomba def ba garab ga bañ a faatu ñu jëmbat fii garab ne dañ ko tuddee Mamor Asta ay sëtam danañ jomb garab ga di faatu suñu jëmbatee ay garab ci école bi ñu seet ki nga xam si doom doomi maroom dañ sonn ci jàng ñu tudde ko jàpp nañ ne élèves ya fay jàng danañ ko toppatoo ba garab ga dee kon loolu moo tax ñu bëgg mbooleem doomi mbaroom topp jàpp ci liggéey bi beneen bi ci des su loolu amee boo amee forage war nga am suuf soo xam ne si tey jii bu ñu doon mën nga faa def bay mën nga faa def ah, ah, élevage mën nga faa def loo xam ne sii tey jii li ngay soxla ci ndaje mi doo ko jëggaani fenn da ko fay yar bu ba ba bis bi ñëw nga dem jënd rey te loolu li koy mane mooy am bu doon sa benn hectare laa am wala ñaari hectare wala genn wala hectare sax nga am ko loo xam mën a def euh, da nga def élevage ndax loolu mënul ñàkk boo amee ndox war nga am suuf soo xam ne si jigéen ñi bu ñu xëyee man caa dem liggéey ku ci nekk boo amee sa juróomi téeméer yóbbu sa kër man caa def dépense kon loolu yitte la joo xam ne si GIE bi moo koy wax loolu moo tax ñu ne nañ ko jaale suñu kaddu waaye kaddu mbooleem GIE bi yëpp la GIE askanu Mbarom Diop loolu mooy doléance yi nga xam si waxoon nañ nañ ko wax ci suñuy kilifa ñooñu jox ndigal loolu ngir ñu mën koo jàllale ci ñoom kon monsieur le maire ñi ngi lay dalalaat waaye di la fàttaliwaat ne yoon moom mooy suñ soxla bi njëkk wasalaamaaleykum wa rahmatullah auzu billahi mina shaytaani rajim asalaamu aleykum axlul mbaroom jëye mbaroom tu tànk jigéen mag ndaw ñoo ngi leen di nuyu gën ngaa seetlu nuyoo nuyoo boobu nag mu jóge ci kaddu yi monsieur le maire Cheikh Dethié Sec, maire de la commune de Ngourane mi ngi leen di nuyu gën ngaa rafetu son premier adjoint Mamadou Fall mi ngi nii toog Cheikh Dethié monsieur Diop ça, monsieur le maire Yen ak Kimbarom. xarit yi soppe gi am di jàmm yi yëpp mi ngi leen di nuyu tey wax alhamdulilahi rabil alamin ndax daaw fii leen tase woon ñaan fekke ren yàlla fekke déwén yàlla fekk def nañ fekke ren kon dañu alhamdulilahi rabil alamin suñu borom dool waaye nag nuy ànd ak suñu jigéen bi baax gi nga xam ne moom la wax soo soxna joojo jóob tabaar fa kàlla macha allah Modou Diop a ngi nii moom la àndal waaye mbool ak biraan ak waa mbaroom yëpp tabaar fa kàlla Cheikh Dakar day moom ci boppam monsieur le maire mi wax na ko boppam tey danoo amoon vote di budget fa la ñu yendu moo amoon yéene jiite délégation bii Mamadou Fall premier adjoint topp ci man coordonnateur topp ci ak nañu war a àndal ah monsieur le maire nag tubaab fakala dafa xam ni képp koo xam ni mi ngi wax développement te dama dikk yombul mënta am développement du am moo tax ginnaaw wér-gi-yaram ginnaaw jàng mi la mu wax mooy lan tout tànk yi na ngeen fexe toppatoo leen waaye nañu wut ay yoon yoo xam ni nit ñi dañuy man di dem ak dikk mu yomb lool moo tax pis li ñuy wax piste nag commune bi yëpp ba fa nga jóge woon tey dana ko def waaye ku ne xam na ne nag ah affaire gouvernement ak état nag du daal di tey sëp tey tey tey ji rek daal di sotti tey waaye moom yooyu bokk na ci ay priorité am programme la boo xam ni programme la boo xam ni booy boo mel ni tubaab kàlla féete na boor ndax nag na mu koy defee noona te la tëlim nguraan géwél bet bokk ba fi mu ne ñii defar tëlim nguraan bi ñu ngi ñëw piste yooyu itam noonu la programmé incha allah waxuma la man kii waaye yoonu ngi ñaax incha allah commune bi yëpp la bëgg a désenclaver te dana ko def commune bi lu fi waa yëkkati rek dafa ne moom nga ko defal ma nga ca biir wasalaam. askanu Mbaram Diop tey dafa mel ne man dafa mel ne tey duma am sax lu may wax awma ko ndax lépp lu ñu waroon a wax wax ngeen ko li ngeen bëggoon wax ngeen ko li leen metti wax ngeen ko euh, santante ak gërëmante ak soññeente moom rek moo fi ne euh, bu dee wàllu euh, liñ bëggoon ci xale yi Amath Sarr Diop li mu wax kenn amul lu ci nit di teg kon foofa waxat wax jëmatu fa bu dee kese sëy bi wax ngeen li ngeen ci war a wax bu dee ci yoon yooyu yëpp wax ngeen ci li ngeen war a wax man li ma xarit bi nag moom laa amel mbarom da dama leen di jéem a fay dama leen di jéem a fay ndax lii ngeen ma defal nii tey ban koy tàmbale xamuloo woon fu nuy mujj danoo àndoon ak yàlla rek woo su suñuy rek woo suñuy dem ñun ñëpp nu àndandoo yàlla def ne gëm sa bopp gëm saw askan dana mën a tax dana tax nit tàmbali loo xam ne day defen du dox waaye day dem bu mu yàgg bu amee gëm ndimbalal yàlla mooy dugg xam nga ne lii ndimbalal yàlla moo fi am bu nu ma di ñëw ay baas ana baa Ibra Binta ay ñeenti baasam indi naa ko fi indi naa fi juróomi baasam muy baas yu xaw a ndawaale waaye booba léegi sarseetu nu euh, benn oto tegunu ca benn baas te bu ndikkee fii lépp loo xam ne bi ni yéen a ngi koy seen fii waa Marooma ko moom kon yokkute gis sama mag Maodo doon wax ci ne waa dëkk bi bu bu fekkente ne gan ñuy dikk di yokk dëkk bi nun ñëpp war nañoo ànd sant waaye nun ñi nekk ci ni ngeen tuddee gan noo gën a sant ndax tey jii askanu Mbarom Diop man damay dox mu jàkk rek ñu ne Baye Talla yow dama laa gis ci euh, télé wala dama laa gis ci mel na ndaje ndekete yéen seen askan noonu la toll mu ne ko xamoo ci dara am wegeel goo xam ne bi daa am kon li may soññ ci ndaw yi aw wax ji jot a baril li ma ta wax lépp wax nañ ko xanaa sant waa mbarom gi nga xam ne ñoom la ñuy fekk si yaatal nañu dëkk bi ci suñ diggante ak ñoom noo bokk dëkk bi nag de sant waa ngumba de sant waa ngay de sant waa euh, kandala ñëw dem Dakar dem Mboora mujjee tuubaa fa nga xam ne bi na falaanee ah na leen leer ne pas-pas ak Kaolack pas-pas rek am solo waaye dañuy wëlbati ko nag sant sunu baay yii nga xam ne bi ne ah mosuñoo yàq dara te ku yàqu nag yaa ngay defar sama baay Cheikh Alassane ngi nii bu demee Dakar fu ngeen daje tey ñaari yoon bu fekkee amul wér di dana ñëw yéen a ko wax yéen gone yi kon moom itam bokk na ci mag ñi gën a ñaatal sama baay taala mii nga xam ne mooy rakk sama baay daam ak sama baay daam baay mii di Jóob nañ nu nañ nu encadré Touba rek sunu xol daf ci sedd ak jigéen ñi nga xam ne bi de ñoo fa ne kon man daal tey amul lu may wax ndax dañ ne yaar rek mooy tuur ak rangooñ mooy mooy aw naqar wala mbégte moob tey nag sama rangooñ tuur na ci mbégte mbaram mënu ma leen a fay man mënu ma leen a fay maa ngi sant ñëpp di soññ ñëpp di wax ne dara mënunoo jëmee ci kanam lu àndandoo gëmante yéeneente jàmm te du ko dox ndax ku mel ne sama mag ma soxna mii mboora liggéey ba mu fay liggéey nit neexut a xam a ah, bu ma ko santee damay sant jeegi mbooro ndax wax neexul dégg moo ne xam nga dañu wax jéegu seyaan jéegu seyaan mooy askan woo xarit bi ne xëy na du sa askanu kër ndey wala sa kër eh, bàyyi nga dugg ci waaye mboora loolaa fa bari waaye ne leen leer ne li ñu indi fii képp koo xam bi da nga doon doomi dëkk bi te indi woo fi kon ma soxna dañ lay sant di delloo ngërëm bu baax a baax a baax a baax a baax a baax waaw ah, Amath Sarr Diop ah, nit bu amee lum tiitaroo na ko tiitaroo te bu mu xaabaabal dañ lay wax laaw la cet ñoon sant nañ la gërëm nañ la ñi xamul sa niveau ñoo ko xamul waaye man maag yow may sa mag yoo xam tur laa la mag ñooy ànd fii ba nekk fii ci dëkk bi sa bëgg-bëgg-bëgg ak saw doxin man lii man bettu ma woon maanaam lii nga doon wax nii tey jii ak si fii moom bettu ma woon ndax danga ko ma sa bëgg lool yàlla la yàlla sàmm dolli la sa xam-xam def ci ndaw ñi li ngay wax ñu dégg ko te jëfe ko waaye eh, Sam ak Maodo itam eh, ci yow laay jeexale ndax guddi na te ñëpp bëgg a dem Sam ak Maodo dan lay ñaanal itam fan guddi ànd ak wér yàlla na nga jig dëkk bi yàlla na nga jig dëkk bi beneen bi ci des suuf suy ñuy wax ah, yow lañ ko yow lañ koy yow lañ koy joxoñ yow la ñuy ndax suuf si tey gannaaw yàlla ci sa loxo la ne yow ak ñaar ñi topp ci yow danoo bëggoon de am ci ku jaayanteel la lan nga xam ne yor na ko mu war koo mën a bàyyi ak dëkk bi bàyyiwu ko ak dëkk bi boppam la ko bàyyeel ndax luñ fi jëf sunu soxna yee suñ doom yee suñ rakk yi ñoom ñëpp ñu ànd di ci jariñu boo liggéey bis mel ni ñëwee luñ soxla wut ko ci dëkk bi comme ni nga xam ne nii la na amee baas yii loolu sama mag Maodo danaa la ko wax yaa ko topp ci yow nan ngeen ci mën a waxtaane ba ubbil lu bunt ndax sama bàyyi mbóot si la ka daa ubboon bunt ba ne woon tey jii bu demee nañ ko dagg keroog bis boobu la ko yàlla moom kon dafa mel ne lam fi ba woon waragu fee jeex ba mënuñu caa jot loolu war a mën a liggéeyee suñu sëyee bii ñuy xalaat ak suñu ndox mi loolu laa amoon lu may wax di ñaanal ñëpp jàmm yal nañ dem ak jàmm waaw ñibbi si ak jàmm ci kattanu yàlla jëm yonte bi ah ki nga xam sama rakki bopp mooy sunu maire sortant bii ah amul sa fay man de awuma ko ndax danoo bokk baay bokk ndey nga am cër boobu te ñu bari xamuñu ko waaye nag la tax ma nangu la koy damaa gis nga xam ne rek li nga am yoon yoo xam ne bi ne ci dëgg rek nga koy teg te man kuy ànd kuy dox ci dëgg danaa ànd ak yow ku ma mën a doon ku ne du ma la bàyyi mukk loo ma woo sax te sama njëriñ néew ci damay ñëw fexe ànd ak yow ba fexe baa walbati la ci ban ak dem ci njëriñal jaam ñi yàlla na yàlla boole dimbali moom yor ndimbal te ku yàlla dimbali dootoo soxlaal kenn lenn sama doom yii nag ñu góor ñii gàcce ngalaama xar kanamu mbaroom noonu biin ñu mënee dox ba mu taxaw itam li ngeen def fii muy exposition yi nga xam ne bi ne kenn ku ne boo di ko gis sa mbokk xam ko mu bokkal xam kañ la wàcc xam nan la def yàlla leen yàlla taxawu. yàlla na fi yàlla def xéewal yoo xam ne bi ne dara du jeex ba li ñu bëgg doomi di ko def yow nag maire euh, nu mu tudd Ablaye loo xam ne bi ne danoo ñorul xam ne liñ lay wax yaw ñor nanu ñor nanu xom loo ca man na nga ca wax Euh, euh, euh, Modou Fall boo demee neen meer pexe dana sot ci dogalub yàlla dana ñàkk sot ci dogalub yàlla waaye pasteefu pexe moom la ñuy wax nañ dolli pasteefam ci dëkk bi ba dëkk bi mën a am liñ bëgg wasalaam. xanaa di ci dolli ñaari baat rek ndaje yi masa am ci ndaje yëpp mii ndaje man moo ma ci dàqal ndax ñaar da ngeen dugg ci ñaar yu am solo ci dëkk muy ndox aku yoon kon. yal na leen ci yàlla dimbali yal na leen ci yàlla dimbali ba ni ngeen ko bëggee am ci lu kawe seen njort ñi ngi ñaan ku fi indi jàngoro yal na nga saafarawu ku fi indi itte yal na faju ñi faatoo tam yal na leen yàlla yërëm ñi fi dese tam yal na yàlla guddal seenu fan may leenu wér nu jàng faatiha ak fallaxi ak naasi ñaan yàlla mu def fi jàmm def ci réew mi jàmm def ci dëkk bi jàmm dolli ci xéewal bisimilah.